paal yónnee naa ko orange money bi day jënd pompaakaar bi quoi bu ñëwee bu foofu rek ci diggu soirée bi ñu sànni ndayam créé polémique bi xam nga ñu joué le loolu baax na ci kanam nga xam booy bi dañ koy xeex dañ koy xeex dañ koy xeex loolu rek lay demee dina ko may si dara quoi Sénégal bu bëri yërmande bu bëri yërmande gars yi